jërëjëf yi mbokk yi nga xam ne yéenay topp kuréel bii de junnatun liman nazamahu bu bàyyi ko ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul taxa ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey mu jëm ci mbëndum Touba mi ñoo ngi fii nag ci Daarul Xuduus diggante tookër bi ak tali daari muuti ñu fekk fi ki nga xamante ne bii depuis ba mu tawee ak léegi moo nekk foofu di Serigne Mor Fall Mbaye muy liggéey bu am solo mu lëkkale woon ay kër yu bari yoo xam ne ndox mi jëloon na ko tey jii nag alhamdulilahi rabil alamin ci ndimbalul junnatun liman nazamahu ak kuréel yi nga xam ne ñoo koy jàppale am na résultat bu fi feeñ dañuy bàyyee kàddu gi ak sëriñ Mor Fall Mbaye mu ñëw ak ñun ci loolu li ñu gën a bégloo nag mooy koñ bi yàgg na am jafe-jafe ay at ngi nii koy am waaye ren lañ mas a gis ku ñu fekk fii ci koñ bi ñu nekk ren du kenn ci autorité nag ku dul ren ji ginnaaw ma dikke bi nekk euh, Dakar jiite Promotion ginnaaw moom yéen fi mas ñëw seet si ñu kenn mus ñu fa fekk muy jafe-jafe metti yu ñuy dund ñun taw daal xudos bi ñu wax màgg daal xudos taw booba ba léegi nii bi nawet bi sotti ba léegi nii ñi ngi fii ci koñ bi ak jafe yi li ñu nag ñaar rek la ñuy wax benn mooy liggéey canal yi ñuy liggéey ci koñ bi dañuy andil ndox waaye bi ñu ëppal ndox nag mooy tëli Promoville bi ñetti point barre yi nekk ci côté Kàcc Bëgg Bàmba da koo defar ba ci ginnaaw benn bedd suuf mu bàyyi ko ndox moomu di bal di ñëw fii soo ko boolee ndox mi jógee ci kër wele moo tax koñ bi li fi ñëw ci ndox depuis nawet ba mu commencé ba léegi nii mbedd yaa ngi am ndox kër yi di am ndox ndoxam barki de rek da cee rawaat machine bi ngeen seen suñ ginnaaw waa junatu ñooñu ko jox ndax xam nañ ne ndox mi dafa xaw a canal dafa sori fii ñooy teg benn machine ca kaw di jël ndox mi ci terrain yi di ko indi fii bu moom bu bu indee fii bii mooy jëlee fii yóbbu ci ginnaaw fi sa yi nekk sa yi jële foofu yóbbu ca canal bi nga xam ne tuwaa ci kan defañ ci ba léegi nag ñu naan bu mbedd yi jeexee ak terrain yi nga xam ne kenn dëkkawuñ ko ndax fii ci sa ginnaaw ñeent terrain yu kenn dëkkawul mooy mooy kër yi ndox côté bee loolu moo fa am kër gii ni boo xoolee kër yi ci ginnaaw kenn dëkkawu fa loolu moo fa am fan yëpp na ci loolu la nekk ñu ne bu jeexee nag boobaa kër yi ñu daal koy eggale waaye li gën ci kër instant yi nga xam ne kër yoo xam ne yëpp leen buñ ko xoolee ëpp na 200 kër yoo xam ne yëpp moom set nañ mais yi des nag li tax mu des mooy dañoo dëkk ak ay yoo xam ne kenn nekku fa kër yooyu kenn nekkul nag duy ndox di leen duyaat ñu ne kon dañuy remplir biti bi bu biti bi feesee ñu yóbbu ca fële loolu ñett ñett ñaari fan yëpp moo leen tënkoon tey nag dañoo arrêté waat dikk ci kër gi nga xam ne borom ma ngi di ñëw waa école bi la aboon waa école bi soxla ko ñun nañ ko vidéo suñu noppee nag continuer école bee laa aboon def fa sama njaboot yooyu ca fii ne la set la ñuy ubbi incha allah moo tax ma bëggoon ko ma ci dimbale ngir yàlla man xam ndox mi ca pompal ma ko waaw ndax fi ne sonn nañ trop suñu bagage yeeg suñu matériel yu yàqu yu bëree bëri bëri yàqu nañ bagage samay matelas ah ak sama jur gu ma newoon ci biir fële ay copine ak ay canard yëpp doon lañ label ci biir waaw ñaar ñaari paire paquet yi ñoo fa def